tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul Serigne Touba dafa toogoon ak lenn ci taalibe yi ne leen juróom yi buñ xam seen juróom seeni waajur bu ñu xam seenuk naqari deret seenuk njaboot bu ñu xam seenuk nay waxtu julli yi bu xam seeni yitte seen barabu liggéeyukaay buñ xam seenuk tayel seeni dëkkandoo buñ xam seenuk ñaawi teggiin muy lu am solo te loolu mooy lislaam bu dee way jur yi loolu sun borom moo ko digle ndax moo wax ci alquran ne wa qada rabbuka alla taabudu illa iyaahu wa bil walidayni ihsaanan sun borom moo waral ci jullit ñi wala moo waral ci nit ñi ñu di ko jaamu te bañ ko bokkaale bu loolu jàllee nag ñuy rafetal jëme ci way jur yi moo waxaan ne wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan na ngeen jaamu yàlla te bu leen ko bokkaale bu loolu jàllee nag nangeen ngeen def lu rafet ci seeni way jur Sëriñ Tuubaa sunu yaakaar it buñ ko royee Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana day wax ci minanul day wax ci Irwaa'u Nadim ne jamono bi way juram di dund muy Sëriñ Mor Anta Sali Sëriñ Tuubaa taxawalul dara taxawut xanaa dafa topp rek ci ndigalul juram di bàyyi itam ay terem def ko itam ab sëriñ jamono bi mu nekkee ci xaal jooji nga xam ne ni leerug yàlla dugg na ko itam am na bis am yalwaankat boo fa ñëw sol am laaye maanaam nitu tasawuf koo xam ne ni taalib sax Saxdu Abihi la woon bi ko sëriñ bi gisee nag am na xeememteefuk topp ko lool ngir ànd ak moom soobu ci yoonu yàlla waaye bi mu tàggoo way juram sëñ Mor Anta Sali daf ko ko tere tere ga itam diisoon na ci sëriñ bi waaye daf ko daal nangu ngir topp way jur ba mu demee ba am ngërmul yàlla nag ba liggéey bi mat la ko sun boroom xamal ne ko kooko de boo ko toppoon mooy sa ndigalul way jur sa liggéey bi dana sotti ndax sa jom may na la ko waaye nag doo dañ mukk di doon taalibeb taalibeb jàmbur te moom loolu bëgg ko woon li mu bëggoon rek mooy nekk koo xam ne ni ci yonent bi sallallahu alayhi rek lay jokk baana li kulli man lahu maxquulu anna wasilati huwa rasulu kon loolu topp ndigalul way jur moo ko ko may bu dee way juróom bu jigéen it soxna mam jaara sëriñ bi nekkee ndaw daf ko daan waar di ko xamal gaayu yàlla yu njëkk ya niñ daan taxawee taxawaay yi daan def di julli boobu sëriñ bi xamagul luy julli jàngaleguñ ko waaye daf daan bàyyi bu guddi jotee mu dem ci ëtt ba fanaanee taxaw kon loolu topp ndigalul way jur moo ko ko may bu ne nag li nga xam ne ni moom mooy euh, sag njaboot bu xam seenu nay loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam rek ndax man maa gën ci yéen moo tax maa gën ci sama njaboot bu dee waxtu julli it bu xam seen i yitte alquran moo wax ne inna salaata kaanat alal muminina kitaaba mawquuta jullikat dañ ko wutal ay waxtu ci jullit ñi ñi nga xam ne dañoo gëm nag moo tax muy wax ñi nga xam ne gëm yàlla imaan mi ngi ci seen xol moo tax Serigne Touba mas nay xelli baraada bu warga ba mu déggee nodd ga dafa wëcc baraada ba mu wadd ci suuf mu dem julli ji kon imaan boobu lañ ci soxla moo tax suñu borom di wax loolu kon ki nga xam ne am na imaan fu ñu noddee waxtu julli jotee lu mu ko fekk da koy bàyyi. bu dee liggéey it Serigne Touba day wax ne na ngeen sàkkulu ndax moo leen di jegeeloo seen borom wajtahidu fi talabil xalaali fa huwal muqarribu li dil jalaali am na ku ñëwoon ne ko man de Mbàkke dama ñàkk ndey ñàkk baay ñàkk nijaay. bëggoon nga doon sama ndey di sama baay di sama nijaay mu ne ko defal ragal yàlla mooy sa ndey def jaamu yàlla mooy sa baay def liggéey mooy sa nijaay kon ku fonkoon yooyu yëpp la bu dee bu mujj bi te muy rafetal jëm ci ay wayjur buñ xam seenu ñaawi teggin loolu tamit yonent bi nee na man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yuxsin ila jaari wala falaa yusa ila jaari ku gëm yàlla gëm bis penc nay rafetal jëm ci ay wayjuram wala boog bu ñaawal nay rafetal jëm ci ay dëkkandoom wala boog bu mu ñaawal mukk jëme ci ay dëkkandoom te moom ko rafetoon ak dëkkandoo la saxaaba yi ridwaanullaahi alayhim ajmain ku mel ne Abdurahmaan ibn Awf dëkkandoo gu rafet tax na yahud ba mu dëkkaloon moo ko dugal ci lislaam ndax dëkkin wam dëkkoon ak moom na mu rafetee kon nag yooyu sëriñ bi wax tomb yooyu lu jara topp la kon nag loolu mooy wuyu tay wi